tay dal satisfaction totale la am ndax ministre bi ñëw na ci turu président de la République fekk fi gouverneur préfet sous préfet ñu def liggéey bu am importance pour ndimbal li président Macky Sall di joxe ci département Nioro bi ñi doon wax ne du am wala matul xana fenen la waaye Saloum moom mat li nañ tey le bi door na tey te inshallah rabbi

fas jom ànd ak njiitu réew mi Sénégal yi woolu ko jox ko lépp mu mu mu takk ay rajo ak journaliste naan lii baax na wala lii baaxul je crois que loolu euh, rafetul je crois loolu nit war na ko jombale boppam sénégalais war na ko jombale boppam. te dafa mel ne moment bi. du moment bi politique tuñu moom politique na candidat la perte na ki amee pouvoir bi woote na dem na wuy ji ko. ne ko dinaa la jàppale dafa war a ci jàppale boobu waaye joxe bopp rocc ci làmmiñ ñun sax soxlawuñu conseil am parce que su ma noonu conseil sénégalais jox ko réew mi donc na sénégalais yi jàpp ne wóolu nañu Macky Sall te dañuy continuer di wóolu président Macky sal ndax lii mu def ci àdduna bi amul benn président bu ko def ci àddina bi